wa mawlana El Hadj Malick Sy radiallahu taala anhu xalif général de Tidiane maa ngi lay nuyu te di la ziar ci turu président de la république El Hadj Macky Sall mi ñu fi yebal ma ànd fi ak gouverneur de la région de Thiès Mouhamadou Moustapha Ndaw ak préfet de Tivaouane Makan Mbeng ñu ñëw fekk fii président du conseil départemental Seynabou Gaye Touré ak maire Mamadou Diagne Sy Mbeng de Tivaouane sëriñ bi délégation bi nag wuute na ak ni ñu fi ñëwee woon daaw li ko waral mooy mbas mi wër te dugg ci réew mi ci weeru mars bii sëñ bi maa ngi nuyu mbooloo mu sell mi nga ànd ak nuyu mbooleem muqaddam yi ak kilifa yu diine yi nga xam ne yéen a bokk réew mi sëriñ bi maa ngi lay ziar sarak suñu xarit suñu wëllëre suñu Pape Malick Sy Aboubacar mi nga xam ne daaw ñoo bokkoon ak moom jotaay bi di ko ñaanal yàlla mu xaare ba àjjana maa ngi nuyu mboolem sa rakk yi di nuyu muxadam yi ak mboolem ñi teewal seen réew fii ci Sénégal di nuyu mboolem kilifay diine yi ak kilifay aada yi ñëw ci xew-xew bi di nuyu tamit ñiy jot ci kàddu yi ñu nekk ci réew mi ak ñu nekk bitim réew di nuyu mboolem njabootu Seydi Hadj Malick sëriñ bi président la république rafetlu na sa taxawaay bi mbas mi duggee ci réew mi ba léegi gannaaw bi mu jëlee matuwaay yi ci tudd benn nga sëriñ bi bi mbas mi di dugg dafa dajeek muy dëgmal ziyaara général bu Tiwaawan nga am ci taxawaay bu am solo ndax ñépp ngi doon réeral di wut ci Tiwaawan nga jël dogal ñu fomm ndaje bi yemuñ ci loolu mboolem daanaka lu xadara bi doon def te mu war am ay ndaje nga dogu ci ne nañ ñi topp li kër docteur wax ndaje yi bañ a am muy julli ci jumaa yi jàkka yi ak bépp a doon ndaje def ko nag ak responsabilité bu am solo loolu doy sëriñ bi jàpp naa ne yow la ñu gis ci kilifa diine gu njëkk nangoo takk sol masque taxaw ci public loolu it jàngale woon ndax ñun ñëpp gis nañ ko dugg nga ci mbooloo xàmmewul la ak ñeneen ñi te gëm naa ne dara war la ko lu mooy jàngal nit ñi li nga xam li moom lañu war a def te muy lu am solo ah loolu nag jàpp ne da nga koo sa maam Seydi Al Malick ndax fekk na fi mbas Seydi Al Malick Sy fekk fi mbas te ndar bi tubaab bi digle ñu ñàkk nit ñi bañ ci jàngalem mu moom mu dem rang ñu ñàkk ko nit ñi gis ko topp ko dal dem ñàkk ji mbas fekkaat na ko fii mu digle ne nañu wax li kër docteur wax te la benn bataaxal tuddee ko nasiatul iqwan fi tasfiil abdan mu faram-fàcce ci lépp luy mbas li ñu ci tere ak li ñu ci digle boo demee ca bataaxal bi nga di di bëgg jeex boo demee ci bataaxal boobu bi muy bëgg a jeex sëñ Maam Maodo wax na ci ne bu leen wuute ak kër docteur ndax ñoom ñoo am xam-xam man ñii di seen sëriñ lu ñu leen digal lu ñuy digal ci lay nekk kon sëriñ bi ñu ngi sàkko ci yow ak ñaan ni ñu ko sàkko woon daaw nga ñaanal président Macky ñaanal réew mi nekk ci jàmm ñu ko sunu maam Aj Si daan ñaanalee mboolem julli yi yërmande ak jàmm maam Aj jullit yëpp ci njabootam la nu bokk moo tax mu ne yërëmal mboolem jullit yi yow saa ndax yow yërmande yaa leen bind te yaa leen yar kon nag yërmande yu jàkk jooju ñu ngi ci yéen ñi ko fi nekkal loolu moo tax te maam woote bés bu mag bii di gàmmu ngir cofeelam ci rasulillahi sallallahu alayhi wa ak yërëm xeetu Muhammad alayhi salaatu wa mu taalif ci ay téere yoo xam ne yëpp dañuy xamle jikko yonent bi alayhi salaatu wa ak aw doxalinam ngir nit ñi roy ko moom daal dafa tegoon tànkam ci farata ak sunna boole ci làmboo mboole melo yu rafet yi ñu bëgg ci nit yàlla maam Maodo kaana sujaan aliman adilan nekkoon na jàmbaari lislaam nekkoon na borom xam-xam bu mag te nekkoon na ku màndu loolu lépp nag dafay tegtale donn gi mu doon woon di yonent bi salaatu al ulamaau warasatul yi borom xam-xam yi ñoo doon yonent yi bokk na ci ñaan yi mu doon ñaan yàlla moom aj malik maam aj malik mu ne yàllaahu yaa ayu yaa qayyuumu yallaahu yaa kaashifa durri wal balwaahi yallaahu yow yàlla muy dund ba faw te doo fi jógee yow yàlla mi nga xam ne yaa fi sax ba faw yow yàlla mi wàññi lor yi ak balaay gannaaw loolu sëriñ maa ngi lay ndokkeel ci bés bu bii ci bés bu màgg bii muy bés buy màggal gane àdduna gën gi mbindeef seydina muhammad sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ne yàlla moo ko màggal su ma yeboo sax ne wax ne lii ñu koy defal moom muy gàmm sunu boroom moo ko ko njëkk defal ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam leeram la yàlla njëkk bind bind ci asamaanu juróom-ñaar bind ci suufi juróom-ñaar bind ci mbindeef yépp lii nag ci baatin la waaye ci zahir mi ngi gane àdduna fukki at fukki fan ak ñaar ci weer wi ñuy nekk muy rabial awal tombe ak bésu ñey ya ci atum tombe bésu tey bi ci atum ñey ya tolloog cinq cent soixante onze ci juddu yeneen bi yàlla Isa te Makkatal Mukarram bés bi mu gane àddina àddina yépp leer penku ak sow àddina bi bés ba mala yi sax seen biir ñuy ndokkalante kon yàlla yàlla fayal ñun suñu maam Seydina Alaaji Malick Sy moom mi ñu baaxee lii njabootam taxawee ko ci gannaawam taxawaay bu rafet ba yóbbu ko tey ci dimension bii koowe bii sëriñ bi président Macky Sall wax nañu liggéey yi mu fi tàmbali woon yépp dana ko àggale mu jëm ci wàllu hôpital jëm ci wàllu assainissement jëm ci wàllu tali jëm ci wàllu ndox jëm ci wàllu courant ndax dëkk bi moo ko laaj lépp lu dëkk bi soxla muy sa yitte di yitte yi dëkk bi bu ci jotee taxaw ci ba mu sotti ñu ngi feddali sa kóllëre ak moom ñu ngi feddali it kóllëreem ak njaboot Seydi Aj Malick ci gépp sëriñ bi ren nawet bi baax na naam am na ay yàqu-yàqu yu bari yu mu am ci yenn dëkk yi waaye yaakaar nañu ñoral lu ëpp li ñu daan am ci mbooleem xeetu meññeef yi ñu jiwoon ci réew mi ci barke bés yi nga ñaanal ñu muur la ko gannaaw loolu sëriñ bi ñoo ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool te wér wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu xaw ma loolu mooy kàddu yi nga xamante ne moo tukkee ci ministre de l'intérieur ci Aliou Ngouille. jërëjëf Ibrahima euh, yàlla wéral la te sàmm lépp la njort te mu ànd ak wér ak sa ko. surtout ci li nga xamante ne moom euh, la bokk na ci kii dend ak moom sëriñ Mansour si Jamil di taaw sëñ Moustapha si Jamil di xalifa ci kër sëñ Babacar noonu la ko sëñ bi wax ñu ngi toog ci jataay ñu ngi ànd ak kii ma fegool sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si im sëñ Mansour borom daara yi bokk na ci sëñ Habib si moomu nga xam ni mooy bu sëñ Mansour borom daara ji sëñ Abdou Hamid si ñi nga xam ne mooy yor cellule communication kàmmo gi mi ngi ci jataay bi te goog rakam Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy bokk na ci jataay bi Serigne Mansour Sarr mu bàyyi Mansour Sarr mu soxna Fatou mu maam Cheikh Seydi Asmaak Pape Youssoufa Diop mi ngi ci jataay bi bu bàyyi Moustapha Diop bu bàjjen Asetu mu maam Alaaji Maalik bokk na ci Malick Sarr di ket di doom di Serigne bi Pape Makhtar Kébé mi ngi nii toog bu ci kanamee léegi wala ngi jox kàddu gi mu joxe message yu sëriñ bi di Ahmed si al Amin tamit mu ngi ci jotaay bi Adi ak kenn koo xam ni taxawaayam taxawaay bu rafet la muy Abdou Aziz Ala Ndiaye moom it mi ngi ci jotaay bi kon monsieur le ministre ñii mooy li nga xam ni sëriñ bi daf ko tànn ci njaboot gi rek muy lu lu lu restreint pour mu mën a ñëw teeru la jox la sa wàccuwaay Mbaye Fall docteur mi ngi ci jotaay bi waaw xaaj moom tuur taal tuddoon naa ko léegi sëriñ bi dafa bëggaat mu tuddaat ko ndax teewaayam bu rafet bu bàyyi mu niru saar mu soxna parti moom see sodasement moom it ñu ngi ci jotaay bi kon mbokk yi dañuy jox Pape mooy li nga xam ni moom la sëriñ bi jëmale ci askan wi da koy wax